opposition bi sàgganee ba tas parce que opposition bi dafa tas léegi dañuy nar a nar a ñàkki mhm. opposition bi dañu nar a ñàkki département bi opposition bi liste national bi dañu nar a séddoo ak bennoo loolu moo naa xew lo législative c'est complètement différent de des locales locale commune bu nekk day am proportionnel ak majoritaire fii nag moom amul loolu fii de 46 département la département bu nekk ñu tabb la deux wala trois députés majoritaire kese kese kese mu am si département yi. national bi nag. 53 mhm. la léegi ñu nar ko séddoo ak opposition ak pouvoir bi kon foofu séddale bi dafa nar a serré comme que am na liste yu bëri maintenant si opposition bi c'est fini sama rêve moom ad euh, mënatul aboutir. d'accord sama rêve moo doon opposition bi am majorité léegi l'opposition ne peut plus avoir la majorité. su ko amee dina ma bett lool lool lool lool lool actuellement Macky Sall dafa jekku opposition ba pare opposition ñoo sàggan bëggantewuñu bëggantewuñu tasaaroo tas su amee liste de trois quatre liste rek état bi jël na jël na jël na département yi quatre-vingt-dix députés yi rapidement da koy jël dakaar bi ñuy wax sa que gagné d'office c'est pas sûr parce que yi dañoo mer dañ ko nar a xare comprendre différence un point dafa yomb am maanaam opposition bi sàggan nañu ba tas xam nga tas nañu su ko defee mouvance présidentielle bi muy risqué jël département raw gàddu yépp su jëlee raw gàddu yépp 90 députés déjà moom am na ko su jëlee raw gàddu yépp parce que Ziguinchor n'est pas gagné d'avance su fekkee Guy Marius Sagna lañ fa bëgg a def c'est pas gagné d'avance dégg nga wax ji c'est pas gagné d'avance Dakar n'est pas gagné d'avance c'est ça le problème la réalité c'est totalement différent de local te ñii ma gis nii Macky Sall nii ma gis nii bakkanam tamit la si teg opposition yi gisuma ñu teg seen bakkan ndax su fekkoon seen bakkan lañ si teg kon dinañ dinañ jël seen égo yi teg ko si suuf fexe ba booloo nekk benn mais teguñu seen bakkan non seulement teguñu seen bakkan mais dañuy jël ay risques Yewwi Askan Wi su demee ba ne day élire day investir euh, Khalifa Sall wàllu askan bi ne day investir Karim Wade Karim Wade ne woon naa ne Karim Wade du ñëw Karim Wade actuellement su naroon ñëw le 8 bii tey la tey du le 2. il y jours pour ñu déposer liste yi ku ñu war a investir mu des 6 jours te teewloo si tànk dëkk bi naka la lay investir léegi su fekkee dañ ko investir ñu risque ne dañ koy investir mais les gens vont vont vont l'État va invalider cette Yewwi Askan bi su fekkee dafa ne par force damay investir Karim Wa kii euh, Khalifa Sall mais dañuy investir liste euh, dañuy invalider liste Yewwi Askan Wi. comme ça que si ça va ça benn xeexam dañuy nar a assister peut-être xëy moo tax yàkkamtiwuñu dara seen affaire. maanaam poteau xam ne si yàkkamtiwuñu dara seen affaire parce que man ni ñu yéexee nii daf ma jaaxal. c'est comme su fekkoon bëgguñu dañoo yéex daal dañoo yéex. dañoo yéex waaw dañoo yéex dañoo yéex daal dañoo yéex daal comme suñu yéexee dafa mel ni bëgguñu dem élection. dëgg la waaw donc nag suñu bëggulee dem élection nag. Mhm. ah bu su fekkee dañu bëgg a investir Khalifa Sall moom si xeex lañu jëm. waaw ci xeex la ñu jëm ci xeex la ñu la foofu la ñuy la ñuy la ñuy daal di jëlaatee rek euh, euh, suñu <laughs> deuxième question ak yow ndax xam naa fi ne nii tàng nga <laughs> nee la duñ toog fii ba jóg fii tam wax nga léegi agence matrimoniale bi nga xamante ne. bi balaa may dem si ay agence matrimoniale dama lay ne ma mane ah. soo gisee mane ne du ma dem euh, bàyyi bàyyi naa ko xale yi. waaw bàyyi xale yi. xale yi députation bi bàyyi naa ko xale yi. activiste yeeg ñi nga xam ne ñu ngi doog a créer seen parti politique xam nga juge dem mi ngi doog a créer parti politique mosul def dem élection xale la si mbir bi. te loolu lépp la nit la lépp di fay. Thierno Alassane Sall. kon ni mu ko dem élection moom kese. Mhm. lu dul bii passé xale la si mbir bi waxuma xale âge de xale si si politique. muy doog a jóg muy doog a di créer doo créer parti Thierno Bocoum nekkoon na député à l'Assemblée nationale. mais xale la si mbir bi parce que mi ngi bugg doog a damal boppam pour amaat pour nekkaat député dégg nga wax ji ñoom Guy Marius Sagna ay xale lañu si mbir bi ndax mosuñoo dem élection ñun nag ñoom depuis 2006 2007 ñu ngi dem élection ay màgget lañu si mbir bi. ay màgget lañu si mbir bi kon bàyyi nañ ko xale yi. même Abdoul Mbaye xale la si mbir bi parce que présidentielle bi dem na ñu recalé ko législative bi duggugul comprendre nga ay xale la ñu si mbir bi ñu ngi doog dugg si langue politique bi en tant que en tant que chef de parti daa bees tàkk dañuy bees tàkk kon ñooñu ñu ngi doog tàmbali di ramper amaguñu appareil électoral ñu ngi doog a dugg ay bleu la ñu kon ñooñu da leen di bàyyi ñu fakkastalu ñu am seen parcours kon ma ne leen naa ko bàyyi xale yi ñuy doog a dugg si élection yi di doog a jàng comprendre nga léegi nag man man ñuy màggat si affaire bi weesu naa député. da ngay làmbi leneen. mais weesu naa député man de la Madior Fass ma toog ni ministre laa war a nekk wala président de la république Sénégal ku ma seetaan di reetaan naka reetaanal sa bopp mais man fan a tonn. ministre wala président de la république du Sénégal. du Sénégal voilà je suis chef de parti sama parti mu tudd RNUA réconciliation nationale pour interafricaine fa ma toll actuellement fu ma toll nii nii nii président de la république du Sénégal comme ni ma ko waxee en 2007 xam naa boobu xale nga 2007 j'étais la plus jeune femme candidate à la présidentielle dans le monde partout dans le monde Ndella Madior Diouf ma xamal leen loolu. ma xamal leen loolu keroog jooy bu may dégg ak daf ma ne yaa nekk la plus jeune femme candidate à la présidentielle dans le monde noonu laa présenté wu plus jeune candidate présidentielle dans le monde 2007 te loolu amoon musuma dem Dubaï mos naa dem Dubaï yóbbu 25 millions pour def jàngi commerce man Dubaï laa jàngi commerce 25 millions laa fa yóbbu tey de moom laa gis ay vidéo gis naa gis naa ay vidéo yu day waar mais yaa ngi may gis naa vidéo waaw xam ne xale yi da nga yàkkamti xale yi da nga yàq ñoo lañu fa na xaalis ngay for ah waaw mais écoute euh, gis nga man ak ñoo xamante euh, am na 2007 laa dem Dubaï moom gis nga gémmiñu waa ji maanaam ay ay gisuma yëpp gisuma yu bëri gisuma yëpp gisuma yu bëri gémmiñ gi lañ ubbi waa ji di ci waaw gis naa boobu ba gis naa boobu j'ai pas compris l'image après laa doog a jëli quoi uh-huh. après laa doog a jëli gis nga nit dangay fonk sa bopp man xale bu ndaw laa bi ma may 40 ans laa nekk candidate à la présidentielle bi ma may 40 ans laa nekk candidate à la présidentielle dégg nga wax ji moins de 30 ans 98 laa dem màkk avec mes propres moyens Maguette Diouf doomu rakku Abdou Diouf mu dey ki ka damay dem màkk may ma billet ma foon day caaxaan mu da nga bëgg a dem màkk billet nga ko Tanor Dieng dem si yàlla tanox Dieng yëkkati huit cent mille may ma ko argent de poche ma dagale lu mu amoon dem màkk quatre-vingt-dix-huit laa la wax 1998 99 laa am sama rajo bopp 97 laa installé samay serveur bopp samay télécentre communautaire yi ma doon apporter cent mille francs par jour quatre vingt quatorze quatre vingt quinze man dama sangoo xaalis ñefeel ko sama bopp dafa ma prêt banque pour installer samay rajo dégg nga wax ci 2007 2007 ma bëgg a jàng commerce xam conteneur naka lañ koy defee. ci nga demee Dubaï. ci laa demee Dubaï. yóbbu 25 millions. Mhm. non loolu liggéeyante ko boo ma dama dama sama chambre hôtel amoon naa benn assistant bu ma yóbbaale woon. Mhm. jël sama chambre d'hôtel wàcc jël jënd samay bagage ordinateur groupe électrogène bagage bari bëri daf ko conteneur groupé ñibbi si waat dama doon jàng commerce dama ko jàng dama si perte sax ndax ñu ma ko jox ñëpp ñu si bëri bagage fay ñu ma Dakar Actu la seeni Diagne boobu ndeysaan mi ngi sonn mu ñëw ramasser moom moo ramasser woon imprimante yeeg bagage encre yi yëpp. mel na waa fayu la ba léegi. xalaatu ko te pour pourtant léegi affaire am baax na donc la liste est longue man Serigne Dia Serigne Dia moo ñëw ramasser affaire yi. te te ba léegi fayu ko. même zone boobu tamit ba fay xam nga lancé naa fi tamit fonds microcrédit El Malick Seck comme da wax ñuy jël borté si la Maguette ba léegi fayu ko. El Malick Seck musuma gis journaliste bu ñàkkee jom nii El Malick Seck di xam nga ko. El Malick lañ dafa dañuy dañu ñëwoon di si seen ndax ak formé ko kii dëgg la moom du dëgg mu ñëw forfait 500000 fàcc fi caméra bi un an xaw ma deux ans après laa ko sarax ko ko su am delloo ma 500000 ba biir ba tey musuma gis nit ñàkkee jom nii El Malick li ma koy wax nii su yëgulu ko sax bi nga ko déggee feneen caméra saa yi may def sama man de la chose mu ne léegi mu ñëw si man ñàkk jom dangay def sa monter sa affaire duñ la gëm ñu ne xaar ñu dem seen ndax dëgg la lu ñu fi for ko yóbbaale ko te duñ ko delloo kon ñu revenir si Dubaï 25 millions laa fa yóbbu pour jàngi commerce jàng naa ba mokkal naka la ñu defee conteneur bagage boo indi yëpp gars yi kii ko séddoo ko. séddoo ñu dara ndeysaan. la am. bu baax wax bi ak ndax muy Dubaï muy fu mu nekk xale yi dañu war a gëm seen bopp muy Dubaï muy Chine muy France muy New York muy Dubaï feeñ muy Maroc bi Dubaï moo feeñ. ma ne Dubaï feeñ gars yi dañuy xale yi dañuy yàkkamti. nit ki da ngay ñefal sa bopp. buy buy wéeru buy wéeru si góor góor di la defaral buy wéeru si góor. da ngay da ngay sa bopp yaa ngi ni yaa ngi liggéey jour korité nga jot yaa ngi ñëw def sa émission yaa ngi job pourtant mën nga def yeneen jéegi ñëw toog sa kër dafa moom baax te da ngay gëm sa bopp te ñeme liggéey waaw par soo seetee Sénégal yëpp ñu dem dafa émission leneen di compté kon gëm sa bopp nit ki da gëm sa bopp gëm gëm sa projet dégg nga wax ni xale yi nag gëmatuñu seen bopp foog nañu taar la rek jekk fexe bi ci góor góor góor gis la nga nga nga nga nga profité si góor mu yëkkati xaalis jox la mais loolu du wéy. déedéet du yoon taar yi. nee na ñaaw da liggéey am jom. moom mooy lépp da ngay liggéey am jom jóg teel a di liggéey. yàlla dalay jox dalay jox lu lépp waaw. xoolal man ma nekk fii bu dee à l'âge de 40 ans l'année je veux être président de la République du Sénégal gouvernement bi dama topp nag de. vingt ans après ba léegi parce que maa ngi cinquante quatre ba léegi maa ngi wax li may wax. xëcc bu tagul dikk. ñu ñëwaat ci li kon ni ko waxee. kon députation bi bàyyi naa ko xale yi te dem préparé wu deux mille vingt quatre. deux mille vingt moo si des. loolu leer